waru leen def ndànk aussi ci élection yi mhm. euh, l'histoire politique euh, day wane ne Sénégal nguur bu falu mhm. population bi da lay accompagner jox la majorité pour nga mën a gouverner mhm. mais dañ nekk ci structuration du landerneau politique bu xaw a doy waar aujourd'hui vous faites face à trois grands ensembles muy bu bi Macky Sall jiite bi Barthélémy Dias jiite bi Amadou Ba jiite mu am yeneen coalition yoo xam ne euh, ñoom Thierno euh, Alassane Sall ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, ci seen bopp dafa am des gens yoo xam ne entre par exemple Thierno Alassane Sall entre deux mille 2014 ak maintenant chaque année quotient électoral am dafay yokk chaque année. ah bon ah am dafay yokku. oui dernière locale yi. Ah. c'était classé troisième. à Thiès. à Thiès. waaw Thiès mooy laay wax. Ah, voilà donc c'est des gens yoo xam ne euh, sénégalais mën nañ jékki-jékki euh, jox leen bopp. donc ci ci ci structuration bu bu mel noonu. Mhm. ñëw benn beneen contexte socio-économique ñëw fekk si ko. Mhm. dinañ ñëw sur la communication du premier ministre. seen opposants yi nee nañ da ngeen di wut discours de de de de campagne. Mhm. mais. la vérité mooy le pays est tendu le pays est sous tension mm-hmm. socio euh, économique euh, ça fait six mois que vous êtes là on ne vous demande pas de décrocher euh, la lune mais concrètement tegagu leen des actes yoo xam ne que dina tax sénégalais yi euh, am yaakaar ba dem voter leen massivement le 17 novembre. xam nga enfin cette façon façon de raisonner. vraiment analyse yu bëri sax jaaxal na leen je pense que euh, même Benno am na pudeur Benno ci boppam Amadou Ba am na pudeur. pour ni Benno c'est plus Amadou Ba. non dama lay wax rek. et puis Benno amatul. d'accord ak euh, Amadou Ba sax seeni mouvement parti am nañ pudeur di critiquer gouvernement bi. pudeur ñenn ñoo am pudeur non xaaral rek parce que xam nga lu tax ma wax la ko xam nga lu tax ma wax la ko. en six mois. nel Amadou ah, Ba moo leen critiqué gul may ma mais waa APR moom wax nañu ba xëdd kaaba kaaba gi li ma la wax la. Ah. entre li ñuy wax ak loo xam ni ku leen ci fekk sax ñoom war nañ laa war nañ leen cee yedd en six mois yoroo budget bul fàtte loolu te ñun dañoo respecté institution yi demandé wuñu loi d'habilitation demandé wuñu dara dañoo respecté constitution ku amul budget munoo koo sikk te sénégalais yéen vous pensez que. mën ngeen a fexe fexe fexe ba sénégalais yi seen raison duñ ko utiliser la raison du peuple dafa amul maanaam ñun dañoo yéen da parfois da ngay dégg yenn analyse yi di wax nga jàpp ni gëm nañ ni peuple sénégalais amul maturité quoi kan mooy toog 6 mois di changer ab dëkk. mais waxuñ loolu. xaaral ma ñëw est-ce que par contre en 6 mois dégg nga fi scandale boo xamante ni da nga naan ñii de fi njëm baaxul ñëpp seetlu nañ les changement qu'il y a eu les ministres travail gisoo fi folklore ñi jàll nañ fi def seeni passation gisoo benn folklore ci dëkk bi. pour wax loolu may ma rek. manifestation yi amoon na folklore bul wax loolu euh, et puis loolu ça ne veut rien dire. non ça rien dire parce que a une benn approche. dégg nga def ngeen fi folklore ça ne veut rien dire def ngeen fi ay passation kilométrique pour les quatre heures de temps euh, mbokk yi ñëw yeeg maam yeeg bàjjen yeeg tante yi ça ne rien dire la rupture est en marche ñëpp seet maanaam Elmani sax Amadou entre le président de la République ak tenu bi mu am ak retenue bi mu am le premier ministre qui gouverne les ministres qui retrouvent enfin la qui pleine... gouverne et qui provoque ma mais loolu defal ndànk rek les ministres qui retrouvent la plénitude de leurs compétences y président boo xam ne day toog fee lu ñëw mu bës bouton ministre yi exécuté sam mu jox leen benn cër wala dara ñëpp gis nañ ni le pays mu ngi commencé tegu ci yoon maintenant en six mois wan nañ leen pourquoi ñu dissoudre assemblée di leen laaj majorité parce dem nañ assemblée xam ni ñii nar ñoo voté budget bi c'était évident que duñu voté budget bi dañu doon traîner loo traîner loo mettre à mooy yow nga mettre ko à l'épreuve ni ko dindil HCCT ak CES mu ne la maa lu tax mu koy dindi mu ne voilà mu ne la lu tax doo ko dindi mu ne parce que ce sont nos amis ñoo fa nekk non c'est se dédire ñoom mënuñu def tout un argumentaire pour justifier euh, l'utilité de ces institutions là ñëw di ko effacer moom laa la bëgg a wax donc ñoom testé nañ leen bi ñu leen defee test le test a montré ku ku violer la loi defoo débat d'orientation budgétaire pour répondre à des propos politiques dindil HCCT nga ni maa bañ xam nañ liñ bëggoon moo tax ma ni la population yi xam nañ ni le projet bi ngeen ni amul bu ngeen bëggee xam ndax am na wala amul yomb na nous avons besoin d'une majorité à l'Assemblée pour réformer les institutions du pays nit ñi dañoo fàtte ni dëkk bi ba tey jii institution yii fi nekk ak ni mu tëddee mooy inefficacité assemblée nationale ñu defar une cour constitutionnelle rendre la justice indépendante loolu dafa am solo c'est même une garantie. mais commencer par rationaliser le fonctionnement de l'État. non loolu loolu c'était à votre portée. bul jàpp c'était à portée de main. bul jàpp ni commencer par rationaliser. li nga bëgg le fonctionnement de l'État lépp dina nekk. comme li ngeen doon wax au début la appel candidature yi gis ngeen fi ñu ko war def ña ngi ko fay def. fan ngeen def appel à may ma rek ma ñëw. ARCOP on a nommé quelqu'un euh, en en violant <laughs> les procédures <laughs> fan ngeen def appel à candidature mais non non Amadou bàyyil boobu fan ngeen def appel à eh, candidature. yow de xanaa dafa mel ni nekkoo ci dëkk bi. <laughs> fan kay maa ngi ci dëkk bi na ko ba li ma la wax dans les même dans les euh, investitures macha allah dégg nga ñu investir ba parti bi jeex parti au pouvoir déggoo fi coow loolu miracle la wala lan la qu'est-ce qui alors qu'il des centaines de candidatures da dégg benn coow. yéen doo leen parti politique kese. dama ah, parti fekk lañ quoi. <laughs> da ngeen a jaaxle. nee naa la toujours yéen xamu leen Pastef. <laughs> yéen en fait vous ne fonctionnez pas comme les. non partis politiques classiques. xoolal un parti doo leen parti politique kese. parti politique un patron. il donne le mot d'ordre tout le monde s'aligne. dafa ni même quand on n'est pas content. on di qu'on est content sant yàlla. xoolal exceptionnellement on a demandé au département ñu investir seen bopp rendre la démocratie au coordinations ñi am consensus nit ñu reprendre ñi si des bi ñu defee les sélections ku ko gis ni ah vraiment c'était la meilleure sélection même si jëluñu ma xam naa ni y a pas eu d'esprit malveillant ñëpp ni d'accord nañ un parti au pouvoir yow xam nga fekk na la fi. xoolal guerre de positionnement yi nga daan dégg. reyante non actuellement yaay am na coalition yu nekk di toj. non moom laa lay wax ñun ñu ngi ni cooc te yoo nekk nguur tey la waroon na xëccoo moo lay wan l' esprit patriotique bi nekk tey ci militant yi dañun jàpp ñu nguur gi comme lu ñuy séddoog lu ñuy lekk ba koo investirul mu bëgg a xar suuf si amu fi ñëpp a ngi ni cell mel ni ñun nekkuñu nguur te ñoo yore nguur ñi xëccoo kay di toj mooy ñi nekk ci opposition moo tax ma ne la changement bi am jàng leen ko ngeen. wax ñiy def science politique ñu gën a gëstu passif ba xam kes ce qui fait alors qu'on dans les conditions d'une de pugilat daanaka xëccoo bay rayanteeg dóorante plus de cent candidats déposés démocratiquement ñu dem tànn bi ñu tànnee ñëpp ni d'accord nañ loolu c'est exceptionnel ci jàmm ak calme déggoo la la Pastef ñëpp fàtte nañ ni il a investi tout le pays